المختار أي لمولده مختار أي كرامة لخير حي كرامة لخير حي فإنه كمن ولي فإنه كمن ولي بانينا جدو يونت بي صلى الله عليه وسلم بانينا جدو يونت صلى الله عليه وسلم كيب كو خامني داف nga ci lum neew neew كيب كو خامني داف nga ci lum neew neew ba do teranga bu reey bu lay ñeewal su boba lolu teranga bu reey la wu lay ñeewal yaangi melni ku sahid ci xare badar wala xare uhud yaangi melni ku shahid ci xare badar wala xare uhud te xare badar ñi fa sahid ñépp yonentu bi nee na àjjana lañ jëm te xare badar ñi fa shahid na àjjana lañ ña fa ña fa teewoon yëpp te deewuñ sax àjjana lañ jëm ña fa teewoon itam te deewuñu àjjana lañ jëm dafa am benn sahaaba boo xam ne teewoon na xare badar dafa am benn sahaaba bu teewoon badar bis jot mu xaw a am nu nu muy waxee ak Aïcha bis jot mu xaw a am nu muy waxee ak Aïcha kenn ci xaritu Aïcha yi ne ko kenn ci xaritu Aïcha yi ne ko yow xanaa dangaa bëgg xaala ko ndax jabaru yonentu bi yow xanaa dangaa ndax jabaru yonentu ngay tàggal. dee moo la teree dugg safara. dee rek la teree dugg safara. Aysa ne ko déedéet. Aysa ne ko déedéet. ndax kii fekke woon na xare Badar. ndax kii fekke woon na xare Badar. xare Badar biñ paree yonent bi dafa wax ne. xare Badar biñ paree yonent dafa wax ne. yaa ahlul badri. yaa ahlul badri. fa taf'alu ma shi'tum. fa taf'alu ma shi'tum. qad ghafara Allahu lakum. qad ghafara Allahu lakum. yéen waa ahlul Badar. yéen waa Badar. def leen lu leen neex. def leen lu leen neex. loo leen defati rek yàlla jéggal lu ngeen mën a defati rek yàlla jéggal na leen. bàyyi nag wax na ne ku def dara ci guddug yonent bi. bàyyi ne ku def dara ci guddug yonent un rek la wax. shay'un rek la wax. lu mu mën a doon rek def nga ko ci guddi gi. lu mu mën a doon rek def nga ko ci guddi ak yonantu. bàyyi nee na am nga karaamaay koo xam ne fekkee nga xare badar. bàyyi ne am nga karaamaay koo xam ne fekkee na xare badar. loolu nag sufiyanke yu bëri wax nañ ko. loolu sufiyanke yu bëri wax nañ ko. Serigne Touba soo demee ci Jazbul Qulub. Serigne Touba soo demee ci Jazbul Qulub. moom nee na xare badar. moom nee na xare badar. xare Uhud. xare Uhud xare Xunayni xare Xunayni yii yëpp bu fekkee def nga ci juddug yonent bi am ngeen sa tiyaaba yii yëpp su fekkente ne def nga ci juddug yonent am nga seen tiyaaba Sëriñ ko wax ci téeréem bu ñuy wax Jazbul Quluub Sëriñ Tuubaa mu ngi ko wax ci téeréem bu ñuy wax Jazbul Quluub loolu yëpp yàlla na yàlla nangul loolu yëpp yàlla nañ ko yàlla nangul amiin ñu fekkee ko at yu bëri ci zaahir ak ci baatin barke Baayes barke Cheikh Tidiane barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi sant yàlla bu baax ci xaal boobu. ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax ci xaal boobu. ci dem gi ñu dem ci jàmm ci dem gi dem ci jàmm ñib si ci jàmm. suñ lépp ñu daal di koy def foofu. suñ lépp ñu daal di koy defee foofu ci jàmm. mu ngi yemale foofu suñ kàddu mu ngi yemale foofu